monsieur le maire Abdou Lahad Ka jëloon initiative wu jënd ay euh, produits yoo xam ne ni yenn yi dañ koy laal ci loxo yenn yi eau de javel yi madaar la ngir fas yéene koo jox ñi nga xam ne ñoom falam mbooloo mi di daje ngir ñu tàmbalee ko lu mel ne école yi jox nañ leen lu mel ne santé jox nañ leen lu mel ne service d'hygiène jox nañ leen lu mel ne daara yi jox nañ leen lu mel ne waa Muxaddamatul Xidma mi yor jumaa ji yor barab yi euh, armée yi jox nañ leen ay ak leneen ci ay askan yoo xam ne ni présenté woon nañ tey ñu am lu ñu leen jox loolu yëpp liñ ko fas yéene mooy fexe ba kenn ku ci nekk ñu wan la yoon nga fas yéene dem sa gox euh, dund euh, liggéey fa ngir fexe ba euh, jàngoro yooyu ñuy wax bañ a law ci biir dëkk bi loolu moo waraloon monsieur le maire def lii tey jii mu woote woon ngir joxe ko loolu tàmbale itam gannaaw loolu it bi ñu demee ba xool ko ba xam ne tey am na malaat yu fi nekk ñu war leen a wutal foo xam dañ leen fi isolé teg leen fa ngir di leen fa fekk di leen fa faj kenn bañ leen faa fekk loolu itam bi comme maire bi yógee euh, joxe na 10 euh, millions ngir ñu préparer suite bi nga xam ne fa lañ war a ak i malade yooyu nga xam ne ñoo war a ñëw loolu itam da koo tàmbalee ngir liggéeyale ko comme bi nga xamee ne xalif général de Mouride euh, Serigne Touba Cheikh Mountakha yàlla na fi yàgg ci joxe na li mu joxe ci xaalis ngir jàppale ko askan jàppale ko gouvernement moom itam commune de Touba jindi 10 millions ngir moom itam tàmbale ko jàppale ko wut ordre sewel wut euh, madar wut des sections yoo xam ne yëpp nañ ko mën a def ci biir loxo ko diwoo yëpp joxe ko ngir tàmbalee ko liggéey bi fas yéene jàppale ma euh, euh, askan wi ci nga xam ne mooy maladie bi ba niñ euh, ci bëgg lépp neutraliser ko ba du jàll du mën a lorati kenn ñu def ko loolu. waaw symbole la rek mooy tàmbali da dëkk bi rëy na rëyaay boo xam ne commune nu ko waaye li ma wax léegi ci biir salle bi rek association yi nañ ci jàpp mhm. ma bàjjeni gox yi nañ ci jàpp. Euh, mbootaay yi nañ ci jàpp ndax kenn ku nekk day dajale jënd eau de jënd nangam te saare ku sa gox kenn ku nekk bu ko fekkee def nañ ko bidee kër gu nekk am bitéelu eau de javel am nangam yaakaar naa ne maladie bi du du du soxor ndax maladie bi ni ñu ko waxee yàlla dimbale nañu suñu dëkk am na naaj ci wax nañ ne naaju rëy wi bu bëri wi mën na tax microbe bi du sori kon nag bu buñ ci boolee euh, fagaru ci lii nga xam ne jot nañ koo joxe yaakaar naa ne yàlla mën nañ cee dimbale euh, lii wër tax ñu reporter ak màggal màggal gi defuñ ko ngir folklore defuñ ko ngir leen dañ ko def ngir ñaan ak jaamu sunu borom kon nag balaa wàcc na màggal gi dama yaakaar ne day lieu boo xam ne tey dañ fay war a taxaw ñaan sunu borom balaa boobu génn ci àdduna bi waaye eh, dañ koy reporté wala dañ koy def sax kon dafay mel ni li nga doon def àddunaa toxoon wala dara eh, dee moom xalaqal mawtu wala ayaat yàlla dee la njëkk a bind ci dund kon lu war a am day am waaye nag li am mooy nanu tàllal suñu li loxo ni ko yàlla waxee ud'uuni astajib lakum ñaan leen ma may li yàllaa ko waxoon nañ ko ñaan feebar bi jóge fi kon nag eh, loolu mooy li nga xam ne mooy lu am njëriñ waaye reporté ay màggal ak yooyu kenn defu ko xalaatee su ko li ñu xalaat mooy fas yéene dugg ci màggal gi ñaan ci barke borom màggal gi mu jeexal ko ndax mën na koo jeexal ndax ka nga xam ne lu mel ni amoon na fi ay njéeree dugg ci dëkk dëkk ci tool yi dugg ci ah, dëkk yàq ko jël ne waaje ba mu ñëwee wax ko ko ne ko jaaxale nañ ci mu ne ko demal jàpp ci benn njéeréer ne ko sëñ Fallu nee na nga bàyyi fii keroog ba mu ko defee lañ gëj mu gis njéeréer ba fii may waxee ñoom dëkk booba njéeréer taxawu ka lool nag war naa mën a saafara tey jàngoro ji ca moom moo moo waxoon ne seen sàmba du man kanam man gannaaw mu ne seen sàmba mi bokku ci kon nag ñu ngi koy ñaan ci darajaam kàttanam sunu borom daraje Cheikh Modou Fadel yàlla daal di fi jëlee lii ci barke màggal gi màggal gi dana am incha allah